mbokk yi jullit yi gannaaw ba nu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp yal na nu yàlla boole jéggal di fàttalante ak sunu moroomi jaam yi ne bi ñu yàlla di sàkk di ñu fi wàcce di ñu yónnee ñim ñi daan yónnee te kenn ku ci nekk lu ñam daan waxal néew néew tànnoon na benn tomb boo xam ne moom la doon jàngal nit ñi ngir lan ngir ñu doon nit ñu nite def leen aw nit ñu nite mooy am ba bataaxal bi dugg ci loxo yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mat sëkk ndax euh, mat gu mu mat wedem loona werekaan yépp ndax alquranul karim mii nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa daan gàggante juum kat ba fii mu nekk ña àndoon ak moom ku ci dellusiwaatoon mooy nam ko xame woon rek euh, diina jooju mu indi nag te alxuraan di joxoñ jullit yi fu ñu war a jëm ak fu ñu warut a jëm jubluwaayam weesu wutoon rek def nit ki nit ku nite ndax bari na lu nit am di ko jëfandikoo te fekk bàyyi may am nañ ko ni moom yu bari am na ci sax yoo xam ne bàyyi may mën nañ ko ëppale nit ndax nit ñii liñ ci xamagun ci ay nit ñu tudd ay nit ñaari tànk la yor moo ne am na ci bàyyi may yoo xam ne ñii ñeenti tànk la yor koo xam ne buy jóge fii di dem feneen day darangu loolu ku xam ndox suuf xam nga ne yorut ay tànk te kii maanaam suñu borom gi feeñ ci alxuraan mu mel ni mu mel ba léegi feeñ na ci moom ndax moom man na ba man loo xam ne sax ñu yori tànk mënuñu ko ndax mën naa yéeg te ñu am na ñu yori tànk dii nit mënuñoo yéeg day fay ci ndox am nañu yor ay tànk yori lo yori yoxoto mënuñoo fay ba noppi ku topp ci ginnaawam bëgg koo jot danga xam ne ku mën a daw la wala boog ku gaaw na muy deme la boog moo ne bu ñuy amee ñeenti tànk ñii am ñaar ni ñun am na ñoo xam ne li ñor ci tànk yàlla rek xam lim bu nu mu tudd ndax am na ci yi dox ci tool yi bu nawetee ku ñuy wax ummu arbain ummu arbain ñii ne nañ mooy jalaal ci ñun jalaal tànk yu baree baree bare la yoon ku ko doon wàññi dana mën naa sonn ndax dafa tuuti te jaxasoo ñooñu nag nit daf leen rawe lu bari lim leen rawe bokk na ci nit rek moo sañ a jëfandiku ci yooyu yépp dara du ko ca fekk su fekkee dugg yàq waaye nag su fekkee da bëgg a jaar yoonu ñooña buñ ko bëggee génne ci nit ñi duñ ko mën a génne ndax soo ko nee doo nit mu mer kon foo ko bëgg a dugal ginnaaw da ko da nga ko nee doo nit rek mu mer la mu meree la ca lool ku nekk xam ne nangu dugal ko feneen ndax du la bàyyee boppam moo tax bi lislaam ñëwee. am yitte lool ngir bëgg nit doon nit nit nag yi ko boole ba tax ñu di ko ko woye ay cër la am na ci cër bu tudd tànk ay yoxo ay gët ay nopp ba cër yi xam yépp mat ni ku nit ame noonu la ko ñeneen amee tudd naa ko léegi waaye la nit wuuteeg ñoom nag moom daa sañ ci ñoom moo tax lu ci nekk yàlla ne dana layoo ak moom bu ëllëgee tudd na ci ay nopp yiy dégg tudd ca ay gët yiy xool tudd ca xel mi xalaat di fas ak a fecci mu ne lu ci nekk bu ëllëgee danañ taxawal nit ne ko ana ci jëfandikoo woon léegi nag bokk yi su fekkee lislaam daa ñëwoon ngir defar nit ki jaarale ko ci cëram yooyu ba cëram yooyu benn bu ci nekk am lu ko tax a jóg mu war ko caa liggéey yeneen da ci des mottulante ak moom war naa xool bu baax a baax a baax benn bi ci nekk lu mu koy jëfloo bala caa moroom yee dugg si muy sotti bu ëllëgee moo lay yokk cër yëpp suñu borom tudd na ci ay bopp ma jàng léegi mi ngi ci suratul isra nit ki lu yoonam nekkut euh, na ca maandu ndax yi tax nit xam ci mbir dara ay yoxo mën na caa bokk gémmiñ bokk ca déglu bokk ca ay nopp tànk bokk ca dox dem waaye ab xol walam xelit bokk ca ndax mooy xalaat ba tax léeg-léeg tànk war a jóg wala loxo war a laal walla bët war a gis walla nopp war a dégg yonent bi sallallahu alayhi wa nag ne jant du fenk mukk te amul yaari malaayika yu war yu wër suuf ba mu daj kapp di woote waaye nag ñu néew ñoo koy dégg la muy wax mooy góor ñi nañ moytu ndax am na xur wu xóot woo xam ne lépp tuskara ma nga ca biir góor ñi lañ ko fa tegal ndax lan kàddu yu ñu yëkkati wala pas-pas bu ñuy fas jëmale ko ci jigéen ñi waaye weneen xure nga dend ak moom wu xóot gu ànd ak lépp luy tuskare it jigéen ñi lañ ko fi bàyyil ngir lan ngir luy bàyyeekoo ci ñoom jëm ci góor ñi te mënoon te mën a ñàkk te adduna li muy xumb xumb góor ak jigéen rek moo fi nekk kon weeri xur yooyu yëpp nit ñi lañ ko fa tegal yàlla nañu ci yàlla musal imaamul Xasaali ne eh, moytu leen wax mi nga xam ne ci gémmiñ lay bàyyi ko euh, ku dégg fi ma tàmbalee da nga xam fi ma jëm fu mu doon moytu leen wax ndax wax ji ci génne ci gémmiñ nopp di ko dégg li muy yàq moo ëpp fuuf li aw ñam wu ànd ak posan di dugg ci biir la muy yàq loo xam ne nit ko def ko lekk mu faat ko ci moom rek lay yam waaye lu mu wax bàyyi ko fi mën naa dund ay ati ati at ñu di ko nettali gannaawam ndax ñi ngi nettli ba léegi lii gëstukat yi gaa yi fi jaaroon ñoo koy nettali waaye la ci gën a wérum nettali mooy alquran nangami junni at ci ginnaaw la Muusa alayhi salaam doon wax ak na ba léegi si ku ne mën naa xam la na waxoon Muusa ak la ko Muusa waxoon ay wax la woon moo ne ña Firawna masa posé ne ñu faatu foofa la seen dund mu jaax kon dañ ko lekk seen biir mu jaax waaye la waxoon ba léegi mi ngi fiy des te kat bokk yi su fekkee am na koy wax euh, keneen jot li ko daa fekk mu déglu ko nee na yan bi ki wax am moom la kay déglu wax kay déglu wax ja am ndax bu kenn bu kenn nanguuti déglu kay wax du am njëriñ waaye waxam du am njariñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nag bu dee ay gët la bët yowmal qiyaama am na ñoo xam ne fii ci àdduna mosu mosuñoo jooy benn bés ngir dara ndax dañoo dëgër dara mun leen tax a jooy euh, fitna ji métti juñ teg seen yaram mun leen tax a jooy ñàkk ku mën a doon taxu leen a mën a jooy waaye nee na gët yooyu yëpp yowmal qiyaama yëpp ay jooy jooy yu metti ba mu des gët yi nga xam ne dañoo gëmmoon nanguwu ñoo xool lu xaraam ñooñ ñoom bisub keroog duñ ci jooyante ak gët yi nga xam ne jooy nañ ba tàyyi fii ci àdduna waaye la leen tax di jooy mooy ragal yàlla rek dégg wax suñu boroom ñu tiit gis lu suñu borom jëfe coobareem ci mbindeefam yi ñu yéem ko ba yàgg ñu jooy ci ndax tiit moo tax alxuraan di wax nit ku dëgër bopp la ndax alxuraan jii ñu wàcce ci ñoom suñ ko wàcce woon ci ay doj danga gis doj yi di xar ndax ragal yàlla waaye nit moom ne ko di ko jorool rek waaye nee na bis dina ñëw muy jooy te jooyam yooyu du am njariñ nee na it bët a ngi ni gët a ngi ni yoo xam ne su ëllëgee duñ ci ndax lañ doon jooy jooy nañ ko ba noppi mooy fexe woon nañ ba lañ fi nekk ku néew ci àdduna seen bët mës tegu ci lu ñu wër a gis bañ di ko settantal suñ ko nee suñ ko nekkee suñ ko xoolee gis ko li ñuy gaaw a tarafat duñ nee na ñooñu bu ëllëgee jooyoon nañ li ñuy jooy ba noppi yàlla na na ci yàlla boole moo ne joxoon nañ ci ay nit ñu baax itam ay misaal sayidina yusuf alayhi salaam ba ko zalixa imraatul aziz di wër ndax yittewoo ko lam jëkk jëfandikoo ba mën a mucc da koo nanguwut a xool lam jëfandikoo ba mucc da koo nanguwut xool ndax ndax ku xool settantal rek xol man naa contacter cër yi yépp ba mu def lu mu bëgg sa def waaye la ko yàlla dimbalee ba ko yàlla naree musal daa fexe ba xoolu ko rek nanguwu koo xool fu mu jëm su bëggee dox ci kanamam wan ko ginnaaw wastabaqa albaaba wa qaddat xamisahu euh, di ko dab ba yàlla musal ko waaye salixa ma nga xam ne daa dana jàkk Seydina Yusuf ba seppali ko ba seppali ko ba tax mu yittewoo lam yittewoo kersa ga ko dal musal yàlla na ci yàlla musal bépp jàmm ndax ku dem ba toll fa mu toll nekk fa mu nekk torox toroxtaane ju toll na jam toroxoon keroog ñépp xam ne mooma ñu sutural ko daa fab bëtam ubbi ko rek di xool waaye sayidina aadama alayhi salaam mi nga xam ne mooy suñu maam ñun ñëpp ba ko yàlla ne lu la neex fii lépp defal ba mu des garab gee garab ga la ko ca tax ne coppet ne pelam da koo settantal gis meññatam mi doom yi di jaayoo mel ni ay musique di fëggante di neex lool xob yi naat kër gi sedd guy mu xool xool kenn gisu ko mu xool doom ba ko ca soob gannaaw bu liggéey seytaane jàllee ne ko coppet seex la ko dal dal ko ba indi ñu coono yi ñu nekk fii ci kaw suuf ihbita minha jamia waaye sayidina ibrahima yi sayidina ibrahima alayhi salaam it ba mu xoolee doomam ja mu mat xale bu góor neexa xool lool te bu fekkee mas naa am doomeen mu gëj am doom lool wuute yi bari na ci ndax alxuraan euh, détaillé wu ko waaye daal ba mu ko xoolee xool ko ba bëgg ko ba bëgg ko mu neex ci xolam la ko yàlla ne rey ko rey ko mu topp ndigal lool daa fekk nag mu am waajtaay moom itam ni yónent yëpp da amee waajtaay ba ko yàlla ne rey ko moom bëgg bëgg yàlla da ko gënal lépp bala ko ca fekk fekk ko ca pay gu toll noonu fekk ko waaye ko ñuy wax Qaabil ka doon wax naan fi alxuraan di wax suratul maida mooy xaabil ak xaabil euh, ci tënk par ñaari doom la sayidna aadama doon am euh, góor ak jigéen góor ak jigéen góor jigéen ñi juddu woon euh, ñaar fukki at ci ginnaaw wala fukki at ak juróom nangam ci ginnaaw ku jigéen ki lañuy ñuy fab boole ko ki juddu at ki juddu ci gannaaw ba fab ki juddu léegi si boole ko ki juddu fële ci tey góor moom na kam dajeel neexu ko ki xaabil dajeel euh, moo ko gënal mu añaane ko ko teg ko bët ba xëy bis ne ko la aqtulan nag mu tontu ne ko inna innama innama yataqabbalu llahu min almuttaqin maanaam yàlla moom mooy atte te atte nañu ba noppi boo ma jéemee rey it man sama man yaa xam waaye man du ma la rey man ndax xam naa lañ bokk waaye teg gëm ko teg bët rekk moo tax mu dem ba rey ko jaaxle lool ginnaaw bi ndax rey na ko te xamul nu muy def ba yàlla wan ko doyadik doomu aadama rey na ko dox ak moom lu yàgg xamul nu mu koy def fa baasa allahu guraban yabxasu fi l ardi li yuriyahu kayfa yora sawata axi baaxoñ la wan baaxoñ na ko jàngal nu muy def ku faatu loolu jëllu gën a gu moom moom nga xam ne su bëggee jëfandiku ci baaxooñ ak i doomam ak i njabootam yëpp sañ na caa jëfandiku baaxooñ dem di ko di ko jàngal nu muy daal daa wàcc ndigalul suñu borom dana ko woon e, li nga jëkk gis moom mën naa la koo jégal waaye bul ko xool ba di ko settantal moo tax sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko laa tamuddanna aynayka ila ma mattaana bihi azwajan minhum e, li ko tàmbalee tey moom fekkoon naa la fekkoon naa la ci waaye loo ne loo xoolati moom yam ca tarfatil bul ko settantal ndax settantal ci loolu nekk di amee comme tudd nañ fii làmmiñ te mooy dëgtal nopp tudd ab gis tudd am xel muy muy muy xalaat nañu déglu ba xam gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa nu ko njaboot ko doon dund ñoom Seydina Abu Bakr ngir moytu ay wax da def ñaare fu mu jëm waxuma la damm ga mi dam ab gisam di bañ a xool lu mu war xool waaye day log aw xeer woo xam ne bañ a wax dong mooy tax mu log ko mel ni ku log màngo bu mag ku log màngo bu mag ba fi mu toll nii moom su su dee wax it wax ja du set waaye muy muy liyaar naan lee ak fee waaye ragal wax moo taxoon mu daal lok xeer wu mag woo xam ne day fees daal liggéey min gi ak nim mu toll euh, mas naa tàllal làmmiñ wi di ko joxañ ñu ne ko loo ci jublu mu ne kii li tax li tax bëgguma cee bëgguma ko génne fu nit dugg ëllëg moo ko fay dugal yàlla na ci yàlla musal Seydina Abdullah ibnu Mas'ud mas naa waat ñu ne waaw yow mi ni nga toll sa pas-pas kenn waxaalewu ko li nga jàngal ci yonent bi kenn waxaalewu ko lu jar lingiñ fekk daa am kuñ yóbbu kaso atte ko ne dañ koy tëj lu yàgg daanaka mën na faa faatoo ndax fi mu toll nii ci réew yi adduna bi léeg la ñu atte nit ne téeméer at ak juróom lañ koy tëj faatu mën na ko faa fekk mu ne kooku ab kasoom yàggut lam def ba dem kaso li làmmiñ di def moo ko raw ndax kasoog adduna nit ki mën na caa génn walla buur yërëm ko génne ko waaye kasoog làmmiñ sawar la yóbbu nit xaalidan fiha daad ne am na keneen ko wax ne bokk na ci musiba yi làmmiñ mën a indi dem sawaraa ci gën a tuuti ñu ne ko déet dem sawara kay sëñ bi dara melu ni mu ne xoolal euh, xaw sama sawara mett gën naa mettante mu ne xoolal làmmiñ fi mu nekk ak ni ko yàlla liggéeyee dugal ko ci biir gémmiñ gi nga xam ne bu ngawut doo ko seen sàkkat ay bëñ mu wër ko ci suufu làmmiñ yi mu mel ne daf ko da takkaatu buum goo xam ne ba làmmiñ bi jógee mu jóg mel ne ku koy téye daal di koy waddewaat am tuñ te téewut léeg-léeg mu ne pëllëf biti wax loo xam ne lii desu ko fàtte ba addunay tukki nga xam ne moom day dem sa wara li tax dem sa sawaraam amul solo day yóbbaale ñu bari yàlla noonu yàlla musal ci lool moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa mas naa xëy bis laaj yi ne leen lu nit wax lu nit xas ba wax ba mu rëcc ko ba génn lu ci bare bare day war ci kaw nit ki di ko dañal di ko yóbbu foo xam ne sax ak dundam ko fa yóbbu ba des digle lu baax tere ab safaanam xanaa waaye sax bu génnee foofu rek ay waxam a ko war léegi di ko yóbbu fu nekk danañ ko xamee foo xam ne sax musu faa dem yàlla ne doon lu baax rek moo tax fan yii bi xew-xew yi bare ci li ñuy wax euh, jërul ma koy tudd sax euh, jot li xibaar yi daal bari na am na ci yoo xam ne nit ki mën na ko yoral yor ci boppam fu mu jëm yóbbu fa yóbbu fa ànd ak moom saa bu ko soobee xool euh, lu ci nekk alxuraan tuddoon na ko ci aaya boobu ma jàng da nga dégg lu ñuy wax audio audio mooy as-sam'u inna sam'a nga gis lu ñuy wax albasar inna sam'a wal basara mooy vidéo wal fuaad fuaad mooy liir ay commentaire ñett yooyu yëpp moom jamono gi mi ngi koy dund am ca leneen lu ca dolli ko waat nga xam ne da ngay gis ko wax ba noppi ne partagé leen ku ko partagé nangami yoon yàlla na na yàlla na am lii ak laa te bokk yi ki nga xam ne moo jëkk a wax ba ku bokkut ak moom ab dëkk bokkut ak moom am réew jot ca ca du la doonut la mu war a doon ki ko xool daal di jëkkante xool commentaire yi jëfandikoo na am xelam bokk ak waaj ca la mu wax am na ñoo xam ne dana ànd ak ñoom ci commentaire yi am ñoo xam ne du ànd ak ñoom loolu moom ku xool commentaire da ko gis da nga xam ni ñii dañuy commentaire ni li waa ji wax li waa ji wax noonu la am ñu ne li mu wax du naa waaye ñoom ñëpp ñi ngi jëfandikoo seenam xel te yàlla daa tere woon ko jëfandikoo am xelam ci lu dul waxaale wuñ nag dégg ko ba noppi tasaare ko mu jàpp ndax ginnaaw ki doon déglu ji muy wax lu dul noona moo ko waa ji ñooy bokk àtte waxaale wuñ bu ko tasaaree moom day am wàllu boppam mu bokkut ak bu waa ndax waa ja daa rek moom mu fexe ba mbooloo jot ca Euh, vidéo rawatina ca vidéo albasar inna samaa wal basara wal ada yooyu yëpp nag su fekkee dañuy digli ne partagé leen partagé mooy séddale maanaam ku xas ba séddale dëgg-dëgg nag ku ca bokk daa war a am léeg-léeg nag mu dugg ci loxo yoo xam ne yii wërtoon a am waaye gannaaw partagé leen ndigal ngay jëfee partagé mu partagé rek nañ fàttaliku ne ñun ay jullit lañ te dañ ñuy taaj ëllëg di laaj te yàlla nee na ci alquran ci bara warab yu wuute bu ñuy laaj fii ci àdduna bu ñu lay laaj dañ lay laaj ngay dégg ci say nopp tontu ci saw làmmeñ su ëllëgee su yàllay laaj moom du laaj jëmm ji waaye par lay laaj cër bu nekk mu berteg ne su cër yëpp waxee la ñuy wax ba noppi cër yi àndandoo kalaame la ñoom ñëpp ndax fi tànk dem xel a jëkk xalaat benn ñaareel ba loxo téléphone woote téléphone déglu audio xool vidéo daal di partagé koo ko jàllale koo ko jàllale koo ko jàllale léeg-léeg mu jaral ko ko mu jóg dem ak i tànkam jël alal ji nga xam ne cër yëpp àndoon di ko liggéey yàqate ko ci ak ci ay caaxaan bokk yi nag plainte yu bari sax baaxul fii ci kaw suuf ndax ku ñuy topp téeméeri tuuma yoo xam ne téeméeri nit la ku nekk tuumaal ko ku ne xam na ni ab yanam du mën a wayaf foofa nag ba ñoo yóbbu nit kaso day joxe lam yoroon lépp ci lu baax ba noppi ba jeexal takk ñam ameen ñëpp doon ko sëflu ne gàññ am na loolu bu ñu ko xasee ba waxal nit ki bu yemee ñoom ñaar képp sax ci ay jamono da ngay dégg ñun na yem fii mu xorom mu lool ndax léegi tey nga déggal ko ci keneen kan moo ko waxaat loolu fecc ko dara am na fi te inna al ahda kaana mas'uula wa awfu bil ahd na yam ci suñu diggante na yam ci suñu diggante nag léegi dangay ngay dégg ñu ne groupe whatsapp bi dong ci la yam waaye groupe whatsapp boobu am na ñu see bokk ñoo xam ne ñoo koy ñoo koy leeral ñeneen ñoo koy jox ñeneen ñëpp jotandoo ci muy musiba muy law moo xam ne lu ne mën na caa juddoo teqaale ñoo xam ne sax seen yoon nekku ca woon ñax gu wow gu lakkaale gu tooy ñu ne loolu gu tooy mënut takk ñu ne ah yi daf koy sëndal ba mu wow ni moom mu lakk ko te nit ñi dañoo desee dégg am na jumtuwaay yoo xam ne soo gisee ñu jot ci mu yomb baaxatu njariñ nekkatu ci am na ñu ko daan jëfandikoo bu yàgg juróom fukki at ak am ci ginnaaw mu yem ci seen biir ñu di ko jëfandikoo ci ay secret ñoomu neen ku ci bokkut du bokk xamees na ña ko daan jëfandikoo nu ñu tudd lépp waaye biñ demee ba xam ne weesu nañ foofa ñoom dañ ñu ko indil mu mel ne waame woo xam ne ku ko yurut sax da ngay defee ne bokkoo ci adduna si te la ca am njariñ am na ñoo xam ne dañ koy romb fu ñu ubbee xool ko dañ koy jàll dañ koy romb jàll amuñ ci soxla waaye lañ bëgg a gis mooy li ñuy wax ay a munawaat ay fait divers maanaam loo xam ne ca ay jamono ña ko daan xam dañ ko daan nëppalante ba mu doxee fa nax saay ndax ña ko xamoon ñëpp dañuy doxe fa fa dañuy faatu mu jeex waaye léegi danaan kundum ci koñ rek ñu génne ko defe naa bu mu jiw mooy lañuy wax snap nga xam ne da koy filmer nii directement muy dem muy dem muy wax ni nii la demee naa la demee te xamu ca dara commentaire yi tàmbali ñu partagé ko commenté ca benn borom xam-xam sax nee na bi rajo yi tàmbale joxe antenne bi naan tey antenne libre la lu neex waaye na wax waaye na ànd ak i teggin loolu mënut ànd maanaam. Euh, sama boutique a ngi nii lu la neex jëlal moom boo ko xasee ba wax boo ne caa ba mu des tàngal di tudd nangam kon léegi wax ji soppiku na tatyib ak yiir taxyir mënuñoo daje ci mel ni mbir lépp commencé di dox waaye nag ak tege ci ay teggin moom gannaaw lu nu neex waaye wax la kooku nag nee na moom li ko gën a jaaxal ci rajo yi léegi du du dara lu dul dañuy naan wax leen seen xalaat ba jox koo xam ne sa amul xalaat far ndax léeg nga dégg ku ci tasaare lool la mujj def rek mooy maa ngi tuub jaratu ko dem na foo xam ne fii tànk mënatu faa tege fépp di wax nam demee dëgg-dëgg moo tax ab jullit war na geesuwaat bu baax saa su nekk lu taxoon suñu boroom indi ko fi daa war a wuute ak bàyyi ma yi bàyyi ma yi soo gisee alxuraan jël misaal ci kooku mel ni fas te nopp yi gudd te bari tuuba lool te mayu sëñ bi feeñ ci kooku mel ni fasta nopp yi gudd dëkk yu bari ci réew mi wala fanaan suñ masaan bëgg mu daw aw as dañuy yor jadu bu baax danañ ko ca dañ ko teg ci gannaawam gi fu nekk ay yoonu yoon mu door na ñukku ñukku taxaw waaye may yi suñu boroom wàcce jox ci sëñ bi lu bari bokk na ci dëkkam bii moom ñooñu fii ci Touba yooyu day mel ni saa su ne ñu ngi seenu xel te kenn du leen laal kooku nag yàlla wax na ci alxuraan di jàjj nit ki ne ko nit nga bul mel ni kooku fu ko neex mën a yëkkati kàddoom te kàddoom googee buy jóg daa am lu muy àndal léeg-léeg euh, sooy dox ci kaw suuf bul wengal menn mbagg di wane ne may diw waaye sooy wax na sa kàddu suufe na sa kàddu suufe nag fi ci jote ñun mooy ku mënti ñàkk jëfandikoo jumtuwaay yooyu itam nay wax jàmm rek te bañ koo jot li keneen su ci jotee tamit ab safaan dal ne wax ca kaw li tax ko tax a ñàkk solo yàlla bañ ko sawtul xamir la ni mbaam di ŋaaxe ndax mbaam muy ŋaax du yem ci gémmiñ gi kese waaye da yu bari am na lu muy àndal loo xam ne eh, yàlla bu yàlla bu ñuy roog loola waaye noonu la ko yàlla dandaleel da leen wax ndànk ndax wax ca kaw moom léegi tey nga niroog kooku te kooku ay waxam li tax yàlla bañ ko du yem kese ci wax ji kese waaye daa am lu muy àndal inna ankara al aswaati la sawtul xamir eh, su ko defee su doxee ba dugg ci suñu loxo ñu xam ne doonut ne liy jógee fu nekk lépp a baax lu bare lu baax a ngi ci waaye nag ñu néew ñoo koy jëfandikoo ndax ku daan yëngu ci wàllu politique Lamine Gueye la doon mi ngi woon Sénégal daa mas tukki ci biir campagne électorale ba mu ñibbisee ne gaa yi fi bàyyi woon nu mu def ni yëf yi dox lu réew mi wax ñu ne ko yaakaar na dana baax mu ne fa ngeen ko teg ñu ne ko ñu baax ñëpp ñun lañu àndal mu ne kon du baax ndax ñu baax ñu bëree wuñ ñu baax ñu ku leen am ñoom kese mën ngaa bañ a gañe ñi ciy seet lu baax ñi ngi ko ciy gis di ci gis seen bopp bu baax a baax a baax a baax ndax am na ñoo xam ne tasaare lu baax rek leen ñor yal na leen yàlla fay waaye ñi si ëpp nit ñi leen wër ba tax ñuy jaay xaalis ci loolu ngir seetaan ko fu ñuy xase diw ak lu mu ko tontu ak lu ca diw tegaat ak fu mu mujj képp moo dañ ko tax a dugg nañ wàññiku te xam ne seen gët yi dañuy layoog moom ëllëg ci xool gi ñuy xool vidéo yi seen nopp yi dañuy layoog ñoom ëllëg ndax audio seen loxo yi di tàppe di commenté it ak liir commentaire yi ci seenum xalit it day layoo xel yi ak loxo yi bu ëllëgee ak alal ji yàq yàlla na yàlla dafa dégg ak top te musul ci seytaane ak pexeem yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril amin